mbokki internet Yaatal Vision dal leen nag jàmm ci xibaar ginnaaw bi leen nuyoo lu ñeel nag mbirum manifestation bi nga xamee ne moom la waa f waroon a amal ni ko tey ji fële ci diwaanu nag du mujjee am benn yoon ginnaaw bi nga xamante ne bi nag préfet bu Dakar daal di lay xaatim daal di wax ne loolee bu mu fi am benn yoon ñoom ñi nag ñu sukkandiku nañ ci seeni mbir ñu wax ne kat manifestation boobu namoon nañ ko amal sax waaye ñoom dañ koo mujjee dàq ndax kat li nga xamee ne moo fi jotoon a jaar ni ko ay bakkan yu fi jot wàcc ak ñoom seen dégâts yi nga xamee ne jotoon naa am ci biir réew mi looloo tax nag ñoom dañuy dàq nag li nga xamante ne bi moo di manifestation boobu ba jëmmi jamono ñu daal di amal li nga xamante ne bi moo di manifestation boobu fekkoon ne nag it ki nga xamante ne moo di préfet bu Dakar daal di koy aaye nee na it sukkandiku woon ci aaye gi nga ne bii ni préfet bu Dakar aaye na li nga ne bii moo di seen manifestation boobu nee na bu toon loolu it dinañ ko def ko bëgg a defee te kenn mënu ci dara loolu njëkk a yëkkati ay kàddu di waa F24 ki nga xamante ne bii nag mooy coordonnateur Pastef départemental Kébémer di naa Bèye moom fee ca Darou Mouhty ginnaaw manifestation ya fa amoon moom it daal dinañ koy teggi loxo ginnaaw ban ko ko tegee woon ba jotoon ko yóbbu ca yoon ngir mu janloog euh, waa yoon loolee nag ban janloog moom ba pare nag daan doon koy libeere mu daal delluwaat foofee ca Mbéyeen ca këram ak yeneen i nit yoo xamante ne bii jàppandoo woon nan ko ak ki nga xamante ne bii nag moo di Cheikhouna Bèye bu Pastef ki nga xamante ni bii nag moo di Cheikh Bara Ndiaye moom it ginnaaw bi ñu ko tegee woon loxo mandat dépôt loon ko dóor ginnaaw bi nga xamee ne jàngloon ak juge bi waaye lépp luñ ko laaj it nungu caa yëy yàbbi ca moom Cheikh Bara Ndiaye lan koy toppee it bëri na loolee nag tax na ba juge ba daal di koy dóor li nga xamante ne bii nag moo di mandat dépôt donte ne it wax na ne eh, fanaanu gudd guddeem gu njëkk nag foofee ca kaso ba ndaxte kat li nga xamante ne bii moo di aw wér-gi-yaramam xëy na da ko koo mayul looloo tax euh, ndaxte ginnaaw ba nga xamante ne bii nag euh, daan woon na foofee tawat moom Cheikh baari Ndiaye nag loolee ba tey dafa dañagut ca yaram ba ba set ca wecci wecci looloo tax nag xëy na yóbboogun ko foofee ca ndungu siin